xalifa gi di ci imam bi di ci teg ñëpp ñi nga xamantene ñew nañu ci bés bu yi nga xamantene farata la ñu ñew matal ko ci ñi nga xamantene nañu ko di sant yalla bu baax baax ci bima yalla maye ma mën ko fekke ak yeen tay di sant yàlla tamit ci gannaaw bi ma mayee ma mën a julli ci wetu xalifa gu tedd gi mu doon ku ma dalal ci jumaa ji nga xamante ne moom fàttali na taarix gi ñu jàngee ci histoire bu mu nettali ne ñi nga xamante ne ñoo ko samp te ba ci ki njëkk a jaar fii ni fii du maison des jeunes maison des grands la ba ci ki nga xamante ne moo ñëw ba fii doon koo xamante ne sax bokkuñu woon diine mu jël ko maye ko ñu samp ci néegu yàlla nga xamante ne ni nga ko waxee ñépp ko bokk donte wax nañu mosquée omarienne la waaye mosquée jullit yépp la ni mu doone jumaa ñépp ci ñi nga xamante ne mos nañu fi jaar te fekkantewuñu fi ñi nga xamante ne ñoo koy fréquenté tey ba ñu fi nar a ñëw ëllëg te xëy na sax ñenn ñi judooguñu war fee am bés ñu ñëw julee ji fi jaamu fi yàlla ñaan ko fi noonu mu melee ci taarix di dem te du jeexate abadan mel na ni kiñ ko tuddee tamit noonu la mel ci xadara gi te ñi nga xamante ne ñu ngi ci sufiyanke xam nañ bu baax li may wax kon moo tax bi ma egsee imaam bi nga jullee ba pare wala sax laata ngay egsi ma nuyente kilifa gu tedd gi def ma ne fii tey yaa fi waroon jiite mané ko no tay mom damay nangu ni taalibe la doom la waaye damay nangu sax tay nak sa jam la mo bari nak lo xamantene baxé na mu ko ci waxtan ci souf mu don tamit lo xamantene luma nara baye xel la di len ñaanal yalla may len wërgu yaram ak guddu fan ndax bari ngeen njëriñ lool ci jaam yi bari ngeen njëriñ lool ci réew mi ci li feeñ ak ci li nëbbu loolu moo tax respect bu ñu am ci yéen fu ko nit xayma rek romb na ko te fu respe bi commence yem rekk xëy na foofu la cofeel bi tàmbalee sax di dem ndax cofeel gi gën a bareeti da ngeen ñuy suñu da di suñu kilifa di suñu weeruwaay ci zaahir ak ci baatin ndax seen taxawaay ci jamono ak seen taxawaay ci teel ñu course di ñu ñaanal ci lu ñu fekk lu ñu fekkul moo tax ñu xam lan mooy seen valeur te jàppee leen ko ba tax na réew mi ñu yàlla nattoo tey teg ko suñu loos dañ ci am responsabilité lépp loo xamante ne lu baax la ñu fekk ko fi fu ñu ko emele rek ñu war ko mën a jël yóbbu ko fu gën a kawe foofu pour ñeneen ñi ñëw ëllëg mën a tabaxee foofu dem muy ci rafetal ci diggante muy ci jàppale leen taxaw seen wét ba li ngeen nàmm ci diine gi yàlla matal ko ndax ku bëgg a defar réew da ngay defar doomu aadama te ku bëgg a defar doomu aadama ci diine nga koy jaare dégg naa bi ngay wax taarixu jàkka ji sax ndeysaan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 wala mu nekk feneen fi nga xamante ne am ngeen fa yéen a def leneen